asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu mbokk internet yi ñi nga xam ne nooy bëggee Wadduha TV ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi sàkku sa ñaan tey xam naa incha allah nu def minute yu gàtt rek yoo xam ne dañ koy ndokkeele sëñ Muntaxa Mbàkke mu sëriñ Basiiru Mbàkke moom maam Xaadimu Rasuul Seex Ahmadu Bamba si liggéey bu rëy bi nga xam ne macha allah muy masalikul jinaan di si ndokkeel képp koo xam ne yaa ngi naan ashadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ndax ni ko sëñ Mouhamad du Basir waxee seex Mouhamadul Basir mi nga xam ne moo yore kàddu murit ne masalikul jinaan néegu yàlla la pour jullit yépp la macha allah loolu julit yépp war ko jullit yëpp war koo bégee fa tabarakallah jullit yëpp it war koo def ak cant sant si yàlla jalla jalaluhu sant sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom lañ wàccoon si moom diine islam waaye sant si xaadimu rasul fa tabarakallah ngi ndok nu si ndokkeel nu si ndokkeel julit yëpp comme ni nu ko waxee di si ndokkeel murit yëpp fa fa la di si ndokkeel sunu soppe sunu wëllëre koo xam ne macha allah yàlla nu boole muy Cheikh Abdul Karim Mbakke makarimul axlaax Baye Karim nu ngi lay ndokkeel bu baax a baax a baax a baax nu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yokk guddal sa fan lool lool lool macha allah ñu ñaanit yàlla yokk wéral say cër yàlla yi defal ko njabootu Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasul gépp fa tabarakala waaye yàlla defal ko kilifa diine yépp macha allah waaye defal ko jullit yépp it macha allah mënul woon ñàkk ndax lu toll ni xew-xew bu toll ni macha allah su amee fawat dina si dugal ay kaddu wax alhamdulilahi rabbil alamin ñaan jullit yépp ndamoo ko yépp ndamoo ko fa tabarakallah nah lu ama ama am solo la lo xamne ci war dina koy fatali ko ay sekkali sekkali sekkali sekkali fi tabarakala kon ku yalla may nga fekke ko rek war nga ko def ak tiant war nga ko def ak tiant xamne ndam la si Senegal, waye ndam la si afrique ndax dina di wax ne ñun la ko senegal jaglel kon kep ku senegalé ken waru la si jitu dina di wax ne fi tabarakala lu lo am danga ko war a xam téye ko fonk ko naw ko tey Sénégal yàlla daf noo jagleel yàlla daf noo jagleel lu rëy rëy rëy rëy mooy ay yàlla daf noo may kilifay dina yoo xam ne macha allah dañuy digle nuy def nuy tere nuy bàyyi boo gisee lu bëree bëree bëri yaa ngi koy dégg si sous raison yi yaa ngi koy dégg feneen waaye yàlla ngi suturaal Sénégal ba jàmm rek di fi am te si kàttanu yàlla jàmm rek kay continuer di fi am faw si mbaaxu borom beeg barke mag ñu baax ñu fi nekk waxtaan bi macha allah lu si jub nu sante yàlla jalla jalaal waxu lu si safaanu nu ngi koy jéggalu di wax ne yéene bay ndokkeel ak cant ak kontante gu yaatoo yaatoo yaatu si teraanga bi nga xam ne moom la yàlla defal Sénégal muy jumaay masalikul jinaan wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu alhamdulillah